pourquoi ils payent les, militaires avant mm-hmm. Parce que c'est ça. Ah, ah. c'est normal. Mais c'est ça. Donc, il faut que nous sachions l'autre. Que bëgg naa bëgg que nous bëgg naa dëkk bi tamit bu poste dara nekkul ça va mais il faut que apparenter les les enseignants et aussi l'administration, nous ñuy toog di xool école bi ñu parce que c'est là notre avenir L'intérêt, notre avenir c'est dans l'école et l'avenir de ce pays là c'est dans l'école je vous remercie. xam nga grève day mel day

dafa am ñaari mbir yuy tax jàngale bu baax di am ci réew ak ci àdduna ñu ne ko lan la mu ne benn bi mooy tàggat mooy formation mooy jàngalekat dañ ko war a tàggat ko ni ngay dugalee mu ne benn ñu ne ko waaw benn mi ne ñaareel mi ne mooy payoor jàngalekat boo ko joxul payoor bu baax xelam du dal du mun a jàngale jàngale bu baax kon nag bu weer dee ñu dégg ko du mbir xam ne dañ koy wax xam nga parent rek li dégg kaw la fukk gaa yi xeex pour jël sa salaire nga xeex ba ñu leen tëj waaye loolu doy na waar loolu mooy mbir mi yeneen yëpp ay waxu caaxaan la waaw métier boo dem nag dana am ñu ci baax ak ñuy def lu dul noonu waaye ku nekk sa tëraalu bàyyi ma ñun ci école bi ku nekk xam ne li ngay def ci waaye dañu ne tey lu am solo te yëngal école bi mooy dañuy liggéeyloo jàngalekat yi te fay ñu leen

les fonctionnaires titulaires ils bi ngay fonction publique ça sa tiré sur 35 ans Vous décisionnaire Vous les retraite ils presse les fay dans les les fonctionnaire titulaire fonctionnaires koo vous que bu muy fonction publique atam 35 ans vous une retraite fonds national de retraite lañ koy fay les salaire PC yi euh, vacataires yi banque mondiale dafa ne bu leen ma ko dugalal ci masse salariale bi boo leen ko dugalee masse salariale bi day explosé oui. PC bi c'est qui. PC c'est professeur contractuel professeur contractuel ah, maanaam ñoom euh, ñu bëri ci ñoom formé wuñu leen amuñu matricule ñu ngi leen di fayee ci euh, chapitre lu ñuy wax chapitre 3 matériel. matériel xaalis bu ñu waroon jël tabaxee ko ay classe jëndee ci craie jëndee ci ay liiwut ah. moom taabal moom la ñu jël dëpp ko jël xaalis boobu di leen ko fayee dégg ngeen ministre Abdoulaye Diop nee na ñun dañu mujjee def ay def nii parce que bail dañ leen ne masse salariale bi dafa am foo xam ne salaire yi bu mu ko weesu bu ko weesoo ñun ñu jënd seen i léegi nguur gi daaw mi ne vacataire PC vacataire mooy jàngalekat koo xam ne dafa am diplôme rek ñu jël ko parce que mbir yi foog mu leer. waaw ñun amul formation ñu ne ko danay dem jàngale ci école bi. waaye am na lijaase université bu jàngalee waxtu bu ne ñu ngi koy fay 1906 francs maanaam ñeenti téeméer yu manqué si bu boo leen bëggee ñaar fukk bu liggéeyee octobre ba juin weer bu ne dañ koy jox ñaar fukki junni ak ñaar muy 110 000 francs lu ñuy wax somme forfaitaire. sant bi loolu foog mu leer maa bu weer bi bu juin juillet desee ñu dajale lépp lu ko desee jox ko ko mooy reliquat mu mel ni rappel ñu ne ko comme yow amoo salaire bi nga yor ko mën a dimbali sa njaboot yor sa ci vacance loolu tamit sax ci am na iyaa yoo xam ne am na ñu ci doon foqar ci di ci def lu dul noonu gis ngeen iyaa Kolda bi loolu moo taxoon ñu arrêté ba tëj ko maatam iyaa bi fu mu ne nii tëj nañu kenn ñaanalu leen ko waaye nag nit bu nekkee ci mbir da ci jóg léegi nag kon salaire u euh, euh, vacataire yi contractuel daaw nguur gi damaa bëgg képp koo xam ne vacataire nga contractuel am nga ñaa fukki junni wala lu ko ëpp nga jël sa salaire dugal ko ci banque mu fay jaar loolu la ko kooku tuddee bancarisation ndax ñooñu ñu leen doon fay ci iyaay yi lu ñuy wax billetage bu weer dee da ñoo taxaw rek ñu ne la ñaan ñaata 200000 waaye ñu génnee génnee état bi nga signé mu fay la 200000. Hmm. ñun dem nañu. inspection waaw il y a inspection d'académie de Dakar dafa am inspection d'académie, inspection départementale mooy IDEC. léegi bu ñu waxee loolu liggéeykat dañ ko wax fonctionnaire yi nag rawatina jàngalekat ku nekk daaw jël sa salaire dugal ko ci banque mais état bi bu ñu koy def waxtaanu ci xoolul mbir mi xoolul lu ci baax ak lu ci bon et banque yu bëri nag du ñu ay banque ay mutuelle. maanaam ñoom bu weer bi dee amuñu xaalis bu leen di mëtuwaay boo xam ne mun nañu fay salaire di xaaral ngir nguur gi rembourser leen parce que boo gisee ñu ne jaara leen xaalis ci banque yi ñun luñ ci gisoon dañu yaakaaroon ni comme banque yi day gaaw salaire yi day gaaw mais tey salaire yi tey la gën a tey la waaru gën a aay parce que ñooñu dañuy xaar ba trésor viré ñoom ñu doog jël xaalis bi doo a fay léegi ne nañu nee nañu nguur gi nag ah ab réew xam nga loolu laa doon wax bu ko ñu ñi bokkee da nga leen di yemale. munoo mm-hmm. wax man mun naa fay ministre bi seen salaire xanaa tey ministre moo ëpp solo jàngalekat xanaa tey député moo ëpp solo jàngalekat xanaa tey keneen moo ëpp jëm di jàngalekat defe naa ne bu ñu fayee kii fay kii war nañu mën a fay jàngalekat mais lu ci gën a garaaw tey lu muy indi lu tubaab naan démotivation mooy day rey ca war ci nekkoon ci jàngalekat mm-hmm. loolu moo gën a bon ci lu muy indi

moo tax ñu woo leen que dañ bëgg a wax mbir mi ñun ñëpp ko bokk lu ñëpp bokk nag dañ koy waxtaan réew kenn ko baal foo